soxna Daba Mbacke soxna Daba Mbacke mi ngi feeñ jamono ci atum 1925 ci dëkk bu ñuy wax nag Daaru Salaam Kayal Daaru Salaam Kayal nag waajuram Cheikh Mamadul Bachir Mbacke moo ko sancoon muy doomu soxna Mariama Lo ak Cheikh Mamadul Bachir Mbacke waajuram Cheikh Mamadul Bachir Mbacke mi ngi ko tuddee nag Roqayatu waaye nag ñu gën koo xam nag ci soxna Daba moom soxna Daba Mbacke moom nag ñu wax leen nag waajuram wu góor wi nag ak waajuram wu jigéen wi nag ñoom ñooy ñan Cheikh dul Bachir Mbacke nag mi ko meññ doomu Serigne Touba Cheikhul Khadim la waajuram wu jigéen soxna Marema Lo doomu sëriñ Ndaam Abdourahmaan Lo la ak soxna Aminta Mbàkke soxna Aminta Mbàkke doomu Mamor Anta Sali Mbàkke la soxna Aminta Mbàkke ak maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru nag ñoo bokk nag waajur wu góor ak waajur wu jigéen la soxna Marema Lo nag mi meññi soxna Daba Mbàkke bokk itam nag ci doom yi soxna Aminta Mbàkke am ak sëriñ Ndaam Abdourahmaan Lo soxna Aminta Mbàkke nag Seexul Xadiim nag moo ko jébbaloon sëriñ Ndaam Abdourahmaan Lo nag ngir mu dëkkoo ko ginnaaw sëriñ ndaam abdourahmaan loo mooy ku ñuy wax soxna faati loo ku ñuy wax soxna aminata loo ku ñuy wax soxna xari loo ku ñuy wax sëriñ moodu loo ku ñuy wax soxna awa loo ku ñuy wax soxna assu loo ku ñuy wax soxna roqaya loo ku ñuy wax soxna buso loo ak moom soxna mareema loo njaboot gii nag mooy njabootu soxna aminta mbàkke ak sëriñ ndaam abdourahmaan ngir xamale leen nag njabootuk soxna aminta mbàkke ak sëriñ ndaam abdourahmaan loo nag ñoom ñooy ñan soxna faati loo nag bi matee dem kër sëriñ amar faal mbàkke nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ amar faal nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee sëriñ Omar Mbàkke sëriñ Ceerno Mbàkke sëriñ Abdul Quddus Mbàkke ak sëriñ Moodu Faati Mbàkke doomam jii ñuy wax soxna Aminta Lo nag bi matee dem kër Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag lañ ko jébbaloon mook Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Mariyamu Mbàkke sëriñ Mbàkke Madina ak seexandoom ba nag soxna Roqayatu Mbàkke doomam jii ñuy wax soxna Xari Lo bi matee dem kër sëriñ Mbàkke nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Mbàkke Ramata nag am nañ ak njaboota mën cee ràññee nag sëriñ Modou Khary soxna Mbacke Khary sëriñ Abdou Mbacke Khary soxna Ami Fall Mbacke na itam nag ci doomu sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo yi teel a génn àdduna doomam ji ñuy wax soxna Awa Lo jotte dem kër laataa muy dem kër nag la génn àdduna mook soxna Astou Lo nag ñoo seexandoo doomam ji di soxna Astou Lo nag bi mu matee dem kër Cheikh Mamadou Fadal Mbacke ibnu sëriñ Touba Khadim Rasoul nag lañ ko jébbaloon mook Cheikh Mamadou Fadal Mbacke nag am nañ ak njaboota ñu mën cee soxna Mbène Mbacke Falil soxna soxna Sooda Mbàkke ak sëriñ Moodu Maamun Mbàkke doomam jii ñuy wax soxna Buso Lo nag bi matee dem kër sëriñ Ibra Mbàkke Fari nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Ibra Mbàkke Fari nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna May Mbàkke Gube doom jii ñuy wax soxna Roqaya Lo bi mu matee dem kër sëriñ Moodu Faati Aali Gay nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Moodu Faati Aali Gay nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee soxna Faati Gay soxna Aminta Gay sëriñ Moodu Aali Gay moomu nekkoon ne imaamu maam Ceerno Faati Mbàkke Ndaamal Daaru ci dëkk bii nag di Daarul Moxti soxna Roqaya Lo mii nag mook soxna Mariama Lo mii nag ñoo seexandoo soxna Mariama loo nag bi mu matee dem kër Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke ibnu Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag lañ ko jébbaloon mook Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee soxna Assu Mbàkke Sëriñ Moodu Abdoulaye Mbàkke soxna Mariama Lo nag mook Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke amaatoon nañ nag baneen bant bu góor boo xam ne nii nag bi mu feeñee jamono nag lu xiimaane nag la indaale nag ci feeñu jamono am manto nag la indaale woon nag ak yére moo tax itim nag guddul aw fan mi ngi ci dëkk boobu nag di daaru pakacaar nag ñu denc booba itam nag soxna Mariama Lo mi yeeg Cheikh Mamadou Bachir Mbàkke nag ci dëkk boobu nag di daaru pakacaar ak doomam jii nag di soxna Daba mii nag ñu fas yéene waxtaane tey jii ñeenti bant nag la soxna Mariama Lo am ak Cheikh Mamadou Bachir Mbàkke ngir xamale leen nag doomu nday soxna Daba Mbàkke yooyu nag ñoom ñooy ñan soxna Mbàkke xari moom soxna xari Lo bi mu matee dem kër sëriñ Mataar Seyloo nag lañ ko joxoon mook sëriñ Mataar Seyloo nag am nañ ak njaboota ñu mën caa ràññee soxna Maam Faati Lo soxna Nday Lo ak sëriñ Lo ginnaaw bu mu Matar Sayloo moom soxna Mbàkke xari lañ ko jox nag sëriñ Moodu Saynabu Sill mook sëriñ Moodu Saynabu Sill nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee nag soxna Assu Sill doomu ko jébbaloon mook sëriñ Moodu Awa Balla Mbàkke nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee soxna Njóoba Mbàkke soxna Ami Mbàkke soxna Njóoba nag lañ jébbaloon sëriñ Abdul Wudoot Mbàkke soxna Ami nag lañ jébbaloon sëriñ Moodu Mustafa Mbàkke Falilu mu am ci sëriñ Basiiru Mbàkke ginnaaw bu mu jógee ci loxo loxoy sëriñ Modou Moustapha Mbacke Falilou lañ ko jox nag sëriñ maam Thierno Mbacke bu sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacke ginnaaw bu soxna Mariamu Mbacke nag jógee ci loxoy sëriñ Modou Awa Balla Mbacke lañ ko jébbal nag sëriñ Mbay Fallou Ndiaye am ci nag ku ñuy wax sëriñ Mbacke Mariamu Ndiaye ginnaaw bi nag lañ ko jébbalaat moom soxna Mariamu Mbacke sëriñ Mortala Fall bu Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina mu am fa nag ku ñuy wax soxna Daba Fall soxna Mariamu moomu bi mu jógee nag ci loxoy sëriñ Mortala Fall bu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina lañ ko jox nag sëriñ Alioune moom sëriñ Malick Bassine Sy mook sëriñ Alioune Sy nag amuñu nag ak njaboota doomu ndeyam ji nag di soxna May Mbàkke Guube moom soxna Busaloo bi mu matee dem kër sëriñ Omar Mbàkke moom sëriñ Amar Fall Mbàkke nag lañ ko jébbaloon ginnaaw bu soxna May Munatu Mbàkke Guube jógee nag ci loxoy sëriñ Omar Mbàkke lañ ko jébbal nag sëriñ Fàllu Mbàkke nag bu Mbàkke xewar doomu ndeyam bii ñuy wax soxna Mbeen Mbàkke Faliilu moom soxna Assuloo bi mu matee dem kër nag lañ ko jébbal sëriñ Buso Buso moom sëriñ Seexu Buso moo am fokk ñuy wax soxna Faati Buso soxna Xadi Buso ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy sëriñ Buso Bousso moom sëriñ Seexu Bousso moom soxna Mbeen Faliilu lañ ko jébbal nag sëriñ Mortaala Faal mu am ci nag ku ñuy wax Baay Ndaam Faal mi mu faye nag sëriñ Ndaam Abdourahmaan loo doomu ndeyam bii ñuy wax soxna Ami Faal Mbàkke Xari moom soxna Xari Lo bi matee dem kër nag lañ ko jébbal sëriñ Abdu Ummi Mbàkke mu am fa ku ñuy wax soxna Ñanga Mbàkke soxna May Munatu Mbàkke soxna Faati Mbàkke ak sëriñ Mustapha Mbàkke doomu ndeyam bii ñuy wax soxna Sooda Mbàkke Faliilu moom soxna Asuloo bi matee dem kër nag lañ ko jébbaloon sëriñ Moodu May Mbàkke nag moom Cheikh Masamba Mbàkke benn bant nag lañ am nag muy soxna Muuminatu Mbàkke ginnaaw bu soxna Sooda Mbàkke Fàlilu nag jógee nag ci loxoy sëriñ Moodu May Mbàkke lañ ko jox nag sëriñ Ousmane Bousso mook sëriñ Ousmane Bousso nag amuñu itim nag ak njaboot doomu ndeyam bii ñuy wax nag soxna Faati Gay moom soxna Roqaya bi matee dem kër nag lañ ko jox sëriñ Abdou Xari Mbàkke mook sëriñ Abdou Xari Mbàkke nag am nañ ak njaboot ñu mën caa ràññe sëriñ Cheikh Ngaya Mbàkke sëriñ Mbàkke Abdourahmane Mbàkke ak ñuy wax sëriñ Ndaam Mbàkke doomu Ousmane Mbacke moom sëriñ Modou Dieng Mbacke nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Ousmane Mbacke nag amuñu nag ak njaboota ñii nag ñooy lenn nag ci mbokki soxna Daba Mbacke ndax ñoom seeni waajur ak waajuru soxna Daba Mbacke ñoo bokk nag soxna Aminta Mbacke ak sëriñ Ndaam Abdourahmane Lo soxna Daba Mbacke nag muy doomu soxna Mariama Lo ak ma Cheikh Mamadou Bassir Mbacke am na nag ñoom bokkal Cheikh Mamadou Bassir Mbacke ak soxna Mariama Lo ñu mën cee ràññee nag soxna Assu Mbacke bintu Cheikh Mamadou Bassir Mbacke bintu soxna Mariama Lo sëriñ Modou Abdoulaye Bachir Mbacke ibnu soxna Marema Lo soxna Daba Mbacke bintu soxna Marema Lo ma mu dul Bachir Mbacke ak doomu soxna Marema Lo nag ak Cheikh Mamadou Bachir Mbacke mi nga xam ne nii nag bi mu feeñee jamono nag kiimaan nag la indaale jutta am aw tur laataa muy am aw tur nag la wujji suñu boroom soxna Daba Mbacke nag ñett nag la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen ak moom nag muy ñeent ñim bokkal waajur wu jigéen nag ak waajur wu góor nag ñoom ñooy ñan soxna Assu Mbacke bi mu matee dem kër ma mu dul Bachir Mbacke doomam Serigne Abdoul Aziz Baara Moustapha nag la ko jébbaloon soxna Assu Mbacke mook sëriñ Abdul Aziz Baara nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee ku ñuy wax soxna Xadi Mbacke sëriñ Basiiru Mbacke sëriñ Moustapha Mbacke Abdul Aziz Baara ñetti bant yii nag la soxna Assu Mbacke am ak sëriñ Abdul Aziz Baara Mbacke sëriñ Moodu Abdoulaye Mbacke nag mi mbokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen laata muy samp kër nag la génn itam nag àdduna baneen doomu soxna Mariama Lo bu góor boo nag mu bokkaloon waajur wu góor ak waajur wu la wujji nag waajuram soxna Mariama Lo ak Cheikh Mamadou Bachir Mbacke ñu ngi nag ci suuf si nag di Saalum ci dëkk bii nag di Daaru Pakacaar ci Daaru Pakacaar googu itam nag lañ denc nag doomu Cheikh Mamadou Bachir bii moom soxna Daba Mbacke nag bi matee dal alxuraanul karim waajuram Cheikh Mamadou Bachir Mbacke nag moo ko dalal alxuraanul karim ginnaaw bi nag lu ko jébbal waajuram soxna Mariama Lo soxna Mariama Lo nag moo jàngal doomam ji nag di soxna Daba Mbacke ci dëkk bii nag di Kaolack bi seex ma mu Mbacke nag sancee Kaolack soxna Mariama Lo nag la fa yóbbu woon nag comme itam àndoon na fa ak doomam ji nag di soxna Daba Mbàkke soxna Mareema Lo itam nag nekkoon na itam nag kuy jàngale alxuraanul karim ci suuf soosu nag di Saalum ci dëkk boobu itam nag na itam nag ci gone yoo xam ne nii ci ron soxna Mareema Lo ak soxna Daba Mbàkke nag lañ nekkoon wax nañ ne itam nag soxna Daba Mbàkke itam nag daana leen jàngal alxuraanul karim daara jooju nag waajuróom yoroon nag di soxna Mareema Lo ginnaaw ba mu jàngee alxuraanul karim ci ron waajuróom nag soxna Mareema Lo waajuróom nag Cheikh Mamadul Basir Mbàkke soxna Muslimatu Mbàkke nag bintu Sëriñ Tubaa Seexul Xadim nag nag la ko jébbaloon ngir mu yar nag doomam jooju nag di soxna Daba Mbàkke def na itam nag ab diir nag ci loxoy soxna muslimatu Mbàkke ginnaaw bi nag la delsiwaat nag ci loxoy waajuróom soxna Mareema Lo ba nim matee dem kër waajuróom Cheikh Mamadul Bachir Mbàkke jébbal ko nag sëriñ Moodu Isa Lo ci dëkk nag di Tawfeex Xayga Tawfeex Xayga nag soriwul nag dëkk bii nag di Tiipa mook sëriñ Moodu Isa Lo nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee ku wax soxna Moomi Lo soxna Moomi Lo mii nag bi matee dem kër sëriñ Mamor Mbàkke Masamba nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Mamor Mbàkke mbàkke masàmba itam nag am nañu ak njaboota ñu mënoon cee ràññee nag ku ñuy wax soxna ayda mbàkke soxna daba mbàkke nag bi mu jógee ci loxoy sëriñ moodu isaloo la ko waajuram cheikh mamadul basiru mbàkke nag jébbal ku ko cheikh mamadul moustapha mbàkke boolee loon nag ci bi muy dem saalum di sëriñ moor mbàkke bil sëriñ moor mbàkke bil moomu nag la cheikh mamadul basir mbàkke nag jébbalaat nag soxna daba mbàkke mii mook soxna daba mbàkke itam nag am nañu ak njaboota ñu mën cee ràññee ku ñuy wax soxna muslimatu mbàkke bintu soxna daba mbàkke bintu sëriñ moor mbàkke bil sëriñ moustapha mbàkke ibnu soxna daba mbàkke ibnu sëriñ moor mbàkke bil soxna nday mareem mbàkkee bintu soxna daba mbàkke bintu sëriñ moor mbàkke bil ñetti bant yi nag la sëriñ moor mbàkke biil am ci soxna daba mbàkke ci dëkk bii di kaolack nag la soxna daba mbàkke nekkoon nag sëriñ moor mbàkke biil ci quartier bi itam nag di tuubaa ndoorang ci biir kër sëriñ moor mbàkke biil bi mu jógee nag ci loxoy sëriñ moor mbàkke biil jébbalaatoon nañ ko nag sëriñ cheikh turé nag bu ngin gi néew mook sëriñ cheikh turé nag bu ngin gi néew itam nag amuñu itam nag ak njaboota ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy sëriñ cheikh turé nag bu ngin gi néew moom soxna daba mbàkke nag bintu cheikh dul basir mbàkke lañ ko jébbalaatoon nag doomu ndayam ji ñuy wax nag sëriñ muudu xari mbàkke waaye mook sëriñ Modou Khary Mbacke ba tey itam nag amuñu itam nag ak njaboota ci jëmm yii nag la soxna Daba Mbacke jaar laataa ñuy xuus sax ci njaboot gi sëriñ Mor Mbacke Bil am ak soxna Daba Mbacke ñu wax leen sëriñ moor Mbacke Bil sax moom mooy kan doomu sëriñ Ibra Absa Mbacke la sëriñ Ibra Absa Mbacke doomu sëriñ Ahmadou Dieng Mbacke la sëriñ Ahmadou Dieng Mbacke doomu sëriñ Ibrahima Awa Ñang Mbacke la sëriñ Ibrahima Awa Ñang Mbacke doomu maam Maaram Mbacke la njaboot gi mu séq ak soxna Daba Mbacke mooy soxna Muslimatu Mbacke guddul nag itam nag guddul itam aw fan soxna nday Marème Mbàkke moo toog itam nag ab toogaayam bi mu matee dem kër sëriñ ndaam faal nag liñ ko jébbaloon moom sëriñ mortaala faal soxna nday Marème Mbàkke mook sëriñ ndaam faal nag am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee soxna nday mbenn faal soxna maam busa faal la ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy sëriñ ndaam faal lañ ko jébbal nag taalibeb cheikh mamadul bachir buñ doon wax nag sëriñ jiili jëng mook sëriñ jiili jëng nag amuñu nag ak njaboota ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy sëriñ jiili jëng lañ ko jox nag sëtub cheikh mamadul bachir mbàkke bi muy sëriñ moodu abdoulaye Abdoulaye Mbacke imam mook sëriñ Modou Abdoulaye Mbacke imam nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee nag soxna Xujja Mbacke ñu gën koo xam nag ci soxna Naar Mbacke ak ku ñu wax nag soxna Xadijatu Mbacke ñaari bant yi nag la soxna Ndey Mareem Mbacke am ak sëriñ Modou Abdoulaye Mbacke njaboot gi itam nag ñoom ñooy lenn tim nag ci sëti soxna si mu wéy nag nekk nag ci dëkk boobu nag di Kaolack ci loxoy nag ki ko waayuram boole loon nag di sëriñ Mor Mbacke bil di di jàng ak di jàngale bari na itam nag gone yum yar wax nañ ne soxna jàngal alxuraanul karim soxna daba mbàkke waajuróomu jigéen nag di soxna mariama loo moom sëriñ daam abdourahman loo ku daa jàngale alxuraan la nag soxna mariama loo cheikh mamadul bachir moo ko yóbbu woon kaolack ci bi mu sancee nag kaolack soxna mariama loo moom nag yoroon na daaree alxuraan itim nag ci kaolack te itim nag moo yar doomam ji wala bokk na itim nag ci ñi yar doomam ji soxna daba mbàkke nag cheikh mamadul bachir itim nag jébbaloon na ko bàjjanam soxna muslimatu mbàkke bi mu jógee nag ci loxoy bàjjanam soxna muslimatu mbàkke la ko waajuróom nag soxna mariama loo nag yar mu nekk itim dëkk boobu nga xam ne nii kat fa la waajuróom wu jigéen nekkoon nag di Kaolack ba tax na itam nag lu bare bare bari nag ci dëkk boobu di Kaolack itam nag def na ko fa soxna Daba itam nag na itam nag ku yéeme nit itam nag daana ay jafe-jafe moo xam jafe-jafe wér-gu-yaram moo xam jafe-jafe kër moo xam jafe-jafe am doom moo xam jafe-jafe nag bëgg dara itam nag mu faju yitte yii yëpp nag ak yeneen yitte yu ci waaye masaa am su ko soxna Daba Mbàkke yëgee nag dana ko saafara ngir jëmmi maamam nag Cheikhul Xadim bari na itam nag ci saalum saalum yi yoo xam ne ni itam nag soxna Daba itam nag jaar na naa ak ñoom foo xam ne nii itam nag duñ ko fàtte tax na turandoo yu bare bare bare bare bare am na ko itam nag ci dëkk boobu nag di Kaolack ci biir turandoo yim am Kaolack nag wala Saalum ñu mën a ràññee nag tur yi ñu leen di wooye bari na nag ay turandoom yu ñuy wooye roqi am na ay turandoom yu ñuy wooye yata am na ay turandoom nag yu ñuy wooye soxna am na ay turandoom itam nag yu ñuy wooye daba foofu nag ci Saalum ñaare nag roqi moo fa gis wala yata moo fa gis wala soxna moo fa gis buñ ko tuddewul soxna daba moom Cheikh Mamadou Bachir Mbacke kañ ko tudde nag soxna daba itam nag lañ ko tuddee mu amoon nag saalum saalum yi saalum saalum yi itam nag sàmm nañ ko ci diirum nag li fi soxna Daba Mbàkke nekk ginnaaw bu mu fi bàyyi ko itam nag doom ji mu fi bàyyi nag di soxna Ndey Mareem Mbàkke saalum saalum yi itam ne ñu ngi koy wéyal nag ci njaboot googu ci biir kër soxna Daba gi mu amoon ci Touba tabaxoon na fa bâtiment boo xam ne ni itam waa saalum rek ñoo ko moomoon bâtiment bi itam nag ku ci masaa nekk mën ngaa waat ne saalum saalum la bu mu fi bàyyi ko itam nag bâtiment ba tey itam nag ma ngi fa des itam nag ci loxoy saalum saalum yi ndax kóllëre goo xam ne nii nag saalum saalum yi am nañ ko soxna Daba fu ñu riire moo xam ci Kaolack wala fu ñu riire nag ñëw nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba këram itam nag la ñuy dal moom soxna Daba Mbàkke nag yar na mbooloo mu takku nag ci jigéen nag ci biir këram ci biir mbooloo mu takk moomu nag mu yar nag ci biir këram ñu man cee ràññee soxna Bintu Bàcc soxna Maam Faati Mbàkke Moor soxna Daba Mbàkke Moor soxna Ndey Mbàkke Alaaji Moodu Faati Njaay soxna Faati Ndonga Caam soxna Assu Mbeen Sow soxna Assu Seen soxna Daba Jeng soxna Daba Jóob Xayra soxna Sukkay Mbàkke moom Sëriñ Basiiru Mbàkke Xuja soxna daba sekk El Hadji Ñang soxna daba sekk El Hadji Ñang sekk soxna sooda mbàkke moor soxna maam jaara mbàkke moom sëriñ abdul akim mbàkke soxna kinne mbàkke guube soxna joor géey soxna titi géey soxna daba loo soxna xujje njaay soxna daba seen soxna daba jóob kawlak soxna daba mbay soxna daba njaay soxna daba fàllu mbàkke soxna aminta gay roqaya soxna aminta gay rakkam soxna daba sekk géwël soxna daba njuuka soxna daba mbuupa soxna nday daba mbàkke soxna nday assu mbàkke ak ñeneen noonu mu yaree nag mbooloo mu takku nag mu jigéen nag ci biir këram noonu itam nag ni la yare mbooloo mu takku nag mu góor itam nag ci biir këram ci biir mbooloo mu takk mu góor moomu itam nag mu yar ci biir këram ñu man cee ràññee sëriñ Mbàkke Abdourahmane di conférencier sëriñ Moor Diop sëriñ Moodu Diop sëriñ Moustapha Lo sëriñ Abdou Aziz Sy sëriñ Moodu Abdoulaye Sey ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñu takkoo takku nag ci ay góor itam yoo xam ne ni soxna Daba Mbàkke itam nag moo leen yaroon nag ci biir këram mu nekk nag ku bëgg Cheikh Mamadou Bachir Bachir Mbacke ku amoon kóllëre nag ak mbooleem njabootu Serigne Touba Seexul Xadim gi moo xam itam nag sëti Seexul Xadim yi ñu ci bare bare bari ci sëti Seexul Xadim yi Cheikh Mamadou Bachir Mbacke nag moo leen yaroon itam nag ci Kaolack te Cheikh Mamadou Bachir Mbacke nag bi mu leen yaree ci Kaolack soxna Daba Mbacke mii nag waajuram wu jigéen nag di soxna Mariama Lo moo fa nekkoon ak Cheikh Mamadou Bachir Mbacke Cheikh Mamadou Bachir Mbacke itam nag doon na xamal doomam soxna Daba Mbacke njëlul sa doomi baay yii yow nag yaa ma ci doy na nga fexe itam nag ba sa waajur soxna Mariama Lo foofu sax nag bu la ko ci defal lépp loo loo xam ni daal moo aju itam nag ci seenug togg muy seenug lekk ak seenug naan yow mii nag laa ko sase nag nga yor ko mbooleem doomu baayam yi nga xam ne ni ñoo bokk sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim te Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke waajuram nag yaroon leen ci Kaolack ñoom ñépp itam nag soxna Daba Mbàkke nag moo yoroon itam nag seenug dund moom la ko waajuram Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke dénkoon tax na mbooleem doomu baayam yépp itam nag ci ëttub Seexul Xadiim bi amoon naag ñoom itam nag ak kóllëre ñim bokkal Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke ñépp itam nag joxoon nañ ko ci respecté nañ ko ñu takkoo takkoo takku nag ci njabootu Cheikh Mamadou Bassir Mbacke tudde nañ ko doom ñu mën cee ràññee sëriñ Moustapha Mbacke Bassirou nag di rakkam tudde na ko doom sëriñ Moussa Mbacke moom Cheikh Mamadou Bassir Mbacke itam tudde na ko doom sëriñ Cheikh Assou Fall Mbacke itam nag tudde na ko doom sëriñ Fallou Mbacke moom Cheikh Mamadou Bassir Mbacke tudde na ko doom sëriñ Abdoul Khoudous Mbacke moom Omar Mbacke tudde na ko doom sëriñ Omar Mbacke tudde na ko doom sëriñ Bassirou Mbacke Mor tudde na ko doom sëriñ Basiiru Géey war kuuñ itam tudde na ko doom sëriñ Suley Géey itam tudde na ko doom sëriñ Cheikh Aada Géey itam tudde na ko doom sëriñ Mamoor Mbàkke moom Cheikh Murtada Mbàkke ibnu Xaadim Rasul tudde na ko doom sëriñ Moodu Abdoulaye Mbàkke imam ci Tuubaa Daaru Minam itam tudde na ko doom sëriñ Abdu Sekk itam tudde na ko doom sëriñ Moustapha Dieng itam tudde na ko doom sëriñ Cheikh Fall Géey itam tudde na ko doom sëriñ Moustapha Géey Faati Njaay tudde na ko doom sëriñ Siidi Ñaan tudde na ko doom Baay Àlla Kay itam tudde na ko doom Baay Géey bu Daaray Kaamil tudde na ko doom sëriñ El Hadji Mor Mbeng itam tudde na ko doom sëriñ El Hadji Mor ca Saalum itam tudde na ko doom sëriñ Jibi Taal ca Gosaas tudde na ko doom El Hadji Cheikh Mbay ci Njaareem tudde na ko doom sëriñ Tamsir Taal ca Poroxaan tudde na ko doom ku ñuy wax Jóob Alkaati itam ca Kaolack tudde na ko doom Baay Mor Sekk ci Tuubaa Daaru Minam tudde na ko doom sëriñ Birahim Jóob itam tudde na ko doom El Hadji Ibra Badiane tudde na ko doom Baay Mor Kan jëloon na doomu Lo tudde na ko doom sëriñ Lo na ko doom sëriñ Basiiru Mbàkke Xujja itam tudde na ko doom mu génn àdduna mu fab doomam soxna Sukkay Mbàkke itam nag jox ko sëriñ Abdul Akim Mbàkke moom Cheikh Mamadul Basiir na doom ji ñuy wax nag soxna Maam si nag ngir mu yar ko ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñu ko tudde doom ndax jikkoom ak melokaanam nag ci ron Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke soxna Daba Mbàkke bintu Cheikh Mamadul Basiir Mbàkke nag mi ngi génn àdduna nag ci feebar bu ko tëral ci kër gi mu amoon nag ci Tuubaa Daarul Minnam ci bisub alxemis ñeenti fan nag ci weeru tamxarit ci atum 1417 nag ci gàddaay gi alxemis ñeenti fan nag ci weeru tamxarit ci atum 1417 nag ci gàddaay gi dëppoog nag muy jeudi 23 mai ci atum 1996 jeudi 23 mai 1996 rakkam sëriñ Abdul Hakim Mbàkke nag moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam nag ca wetu waajuram wa nag soxna Mariama Lo bintu sëriñ Ndaam Abdourahmaan Lo ci armeer yu mag yi soo delloo nag ci way yi nga xam ne nii doomam nag di ki mu yar di sëriñ Mbàkke Abdourahmaan nag defal na ko ko ngi tudde nag xasida gi tey rii nag fil jinaan fukki way ak juróom-ñetti tim nag la tënk ci xasida gi mi ngi tekki nag ci wolof naawal nag tàbbi itim nag ci àjjana ya soo delloo nag ci biir way yi sëriñ mbàkke abdourahmaan nag mi ngi ciy misaal adduna nag ni mu mënee wor nag doomu aadama yi muy wax ne nag léeg-léeg nga gis nag kër gu naata naata naat léeg-léeg nag ka ko doon naatal nag dem léeg-léeg nga gis itim nag kër goo xam ne nii xumbute gu yaatoo yaatu nag nekk waaye ka ko doon xumbal itim nag dem léeg-léeg nga gis itim nag kër goo xam ne nii lépp lu fa waaye ka ko daa joxe itam nag day dem jikko yooyu yëpp itam nag mu koy misaal nag ci soxna Daba Mbacke nag bintu nag Cheikh Mamadou Bachir Mbacke muy wax na itam nag ak tab la woon mi nga xamal doomu aadama itam nag adduna itam nag kërug la jikko yii yëpp mu limitim léeg-léeg nga gis nag ku ko melawoo adduna nag day xëy xëy rek far kooka noonu itam nag ni la ko defee itam nag ci soxna Daba Mbacke mi jooyu xol daal am doon ko yëkkati nag jagleel ko nag ki ko yar muy soxna Daba Mbacke nag bintu Cheikh Mamadou Bachir Mbacke ci gëj a gis goo xam ne nii itam nag gëj na ko koo gis te itam nag ni la koy noppee gisitim nag ci kaw àdduna ba tax na daal mu def ko ay jooyu xol lu yaatoo yaatoo yaatu daal ci ay jikko ak itim daal ni àdduna itim nag di wore doomu aadama yi ci jant nag wala ab taal nag bu suñ boroom nag daa taal nag def ci nag ay xéewal ci kàllaamay araab itim nag la ko sëriñ Mbàkke Abdourahmane def ci fukki waaye ak juróom-ñett itim nag la ko tënk jagleel ko nag soxna Daba Mbàkke nag ñu teew teewlu ko ya dunya tufaaji'u bi shuruuri wala tada'u alxayaata ala sururi tudakkiruna xawaadisuha bi anna ala tuuli aliqaamati lilqubuuri xawaadisu طالما مر ببيت فأروت أهله كأس الصبور فكم راعت قلوبا في قضاء وأهرقت الدموع على الصدور وكم أخلت ديارا من نفوس عرفناها مصانع للخيور وكم سلبت بنيها نعمة في قريب أو صديق أو عشير كما فعلت بنا يوما به قد أصابتنا بخالتنا الصبور رقية شيخة عرفت بدين وإخلاص وطهر ذات خير رقية خير من ربت وآوت بنات للتأدب في ديور رقية بنت بحر العلم والجود والعرفان محمد البشير عن الدنيا رحلت لدار حق لمثلك هي نعم في سروري فطيري في جنان الخلد وأوي لعرش الله فرحى مثل حوري وعيشي بين جيران كرام من الأجداد في دار الحبور ولا يك في الأهالي بعض baadu illaa sabuurun yartadi xukma alqadiri wa illaa man yuwaasilu saaya xayrin tucawida minki lillahi albasiri wa yadcu allaha matlaca kulli shamsin wa magribaha li ruuxiki fayda nuuri alayki saxaa'ibu algufraani tatra biridwaanin min alrabbi algafuuri wa sala allahu maa talaca dukaa'un ala alhaadi maa al aali albuduuri ay xalifaam nag nii la tëdde soxna maam Mariam Mbàkke bintu soxna Daba Mbàkke moo nekk nag ab xalifaam nag ci atum 1996 nag ba nëgëni ñu koy ñaanal nag suñ boroom guddal aw fanam nag te wéral ay cëram ak mbooleem nag ñu mu séqal soxna daba mbàkke bintu cheikh mamadul bachir mbàkke soxna daba mbàkke nag am na bis nag buñ koy fàttaliku ci ñu tuddee ak màggal bisub juróomi fan nag ci weeru tamxarit di bis bi mu génnee àdduna nag ba ca suba ga bis boobu itam nag la ak njabootam jàpp di ci fàttaliku nag seen waajur wi muy juróomi fan nag ci weeru tamxarit li ko dale nag ci atum 1997 nag ba nëgëni ñu ngi fàttaliku nag doomu cheikh mamadul bachir